ci wàllum kilifa diine yi nag xale yi nga xam ne dañuy saaga kilifa diine yi jël diine yi jël tarixa yi jël xalif généraux yi def leen seen moroom di leen saaga ñi naan ay doonatuma murit ak doonatuma tijaan ak doonatuma ñi yëpp ay faiseur de malin lañ rek ay booy lañ yoo xam ne mësuñu sax doon ay murit boo leen xoolee sax duñu ay murit dañuy dem jël jënd benn njël takk ko c'est de la manipulation mais murit moom kenn du ko doon di taxaw di wax nii parce que affaire politique la nga taxaw naa doonatuma murit ak doonatuma léegi doonatu loolu yëfu ñàkk fayda rek la xam nga xale yooyu vraiment yi innocent lañ jërul vraiment ñuy tardé ci ñoom parce que manipulation la dañuy dem jël benn njël vidéo seen bopp wax li ñuy wax boo demee sax duñu ay murit ñeneen lañ ndax murit moom ku ko doon gëm sëñ bi gëm sëñ Touba yaakaar sëñ Touba am na loo xam ne doo ko wax waaw kon nag ñooñu jëruñu leen di may vraiment mm, bës benn bi quoi nañ leen yërëm quoi waaw beneen bi ci topp mooy ñi nekk bitim réew tey saaga sëñ Bas wala ñuy saaga sëñ Muntaxa am na ñoo xam ne sax dañuy sàllalu sëñ Muntaxa naan Muntaxa Muntaxa di di di di di di saboté quoi ñooñu il faut ngeen yërëm leen parce que seeni espoir moo yàqu seeni espoir a jeex dañoo yaakaaroon ci Ousmane Sonko ne bu faloo ñu ñibbi si senegal occupé ay poste wala jéem am dara ci nguur gi loola taxoon ñu doon teg pression di saaga di yónnee xaalis di tàlloo booy di yàq réew mi di saaga sëriñ si wax ju bon ju nañu di ko wax seen yaakaar a tas fi mu toll nii nit bu yaakaaram tasee nag ah, lu mu jiin xeeb ko moo tax lu ñuy saaga sëriñ si di leen wax wax ju bon di leen wax wax ju ñaaw mais la ma leen ci waxoon rek ay nit lañu yoo xam ne dañoo am pathologie bañ doonee gone seen baay moo tiimoon seen yaay di dóor di padd di saaga seen baay ak seen yaay moo tiimoon seen seen seen seen baay moo tiimoon seen ndey di di di saaga di wax wax ju bon di di di padd moo tax ñoom fi ñu toll nii tal tayuñu ko ci yaru boobu ñu yaru ba màggee ci moo waral fu ñu toll dañuy saaga moo tax yërëm leen leen. bu leen leen faale gone yu ndaw yii da ngeen di xam ne ay xale lañ yërëm leen leen te xam ne ndeysaan dañ leen doon jéem a détourné yaakaar ju tas la moo waral lii ngeen gis yëpp ñu ngeen di ko gis. mais kilifa yi ña leen doon gëm ñi ngi leen di gëm ñi leen di topp ñi ngi leen di topp màggal gi tay lay gën a neex tay la nit ñi di gën a màggal yi tay la ñuy gën a gàmmu ci tay lañ ciy def luñ lu ëpp liñ ci defoon daaw ku ci sa xool dagg sa affaire la sa affaire la hmm? ñoom dañoo nar a crise rek dañoo nar a wax a wax ba seen xol yi génn di dagg te munuñ ci dara yoonu tarixay sëriñ sii ak sunu maam yi li ñu fi jëmbat gone yu ndaw yu juddoogu yu tekkiwul dara munuñu koo kii munuñu munuñu koo dindi te koo ci gis nag bitim réew amul liggéeykat defut dara ab jeegab tubaab la yor ndaw say liggéey di ko jox ñi ngeen gis ci réseaux sociaux yi yëpp ñu am temps nii bu ngeen leen xoolee ay jeegi tubaab lañu yor ah, ñuy liggéey di leen jox ñoom ñuy xëy ne ci réseaux sociaux yi di wax rek